nuyoo bi ak ziyaara bi nuyu naa sunu mbokki auditeurs yeeg auditrices yëpp rawatina waa Sénégal yëpp. jërëjëf Oustaz ñu fekk la kon foofa ca Makka ci yenteelu yóbbalu euh, bés bi ci semaine bi. waaw Haj Babacar yóbbalu tey bii dafa jëm rek ci loo xamante ni bii su ko nit ki waxee ba noppi. ginnaaw wax ja lu mu ñaan sunu boroom daf ko koy nangul. bokk na ca baat yi may wax. mooy subhanallah alhamdulillah. لا إله إلا الله الله أكبر حاج بابكر رام ku ñëw ci yonent bi salaa sallam ni ko dama bëgg nga jàngal ma lu bax lo xamanteni bi suma ko waxe dana ci amé njariñ yonent bi wax ko niko waxal ñenti baat yoy moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar waji ji ni kay limi muy tekki yàlla rek ko mom yonent bi niko sa yo waxe subhanallah yàlla dafa nan deug la nga wax alhamdulilah yàlla ni dëgg la nga wax laa ilaha illallah yàlla ni dëgg la nga wax allahu akbar yàlla ni dëgg la mu ne ko lan laa ciy teg yonent bi ni ko da nga ciy teg allahumma igfir lii mu ne boo nee allahumma igfir lii yàlla danaan li nga bëgg defal naa la ko kon nag mu ngi noonu Haj Babacar nit ki su demee ci dundam ba amatul benn bàkkaar lépp lu muy yóotu daf koy jot Haj Babacar.